képp ku bëgg a gis spectacle vraiment gis Baaba Maal euh, sur scène je crois que le 9 mai boo demee Zénith incha allah doo ko doo ko rëccu di nga gis euh, vraiment un grand artiste parce que Baaba spectacle lay def moom non seulement aspect musical bi mais aspect scénique je crois que seenu Baaba Maal wéetul képp ku ko seetaan itam di nga gis ne euh, artiste la boo xam ne bi bu nekkee ci kaw scène il se donne à fond dëgg yàlla day joxe pendant deux heures pendant trois heures de boo ko seetaan Baaba Maal tu t'ennuies jamais et puis facette yi mu mënee dafa bëri Baaba il te musique moderne il world music il te fait de l'acoustique il joue de la guitare xam nga donc je crois que et puis seenam wéetul je crois que képp ku bëgg a gis spectacle vraiment euh, nanga dem le 9 mai Zénith seetaan yi Baaba Maal